ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre ci atum 2007 Serigne Saliou Mbacké wéetal Sénégal wéetal ndongo daara yi taalibe yi wéetal jege ñaare yi wóllëre yi rawati bëgg néeg yi fukki at ak juróom gannaaw ba mu làqoo ci suñuy gët moomu Serigne Saliou mi ngi wéy di des ci xol yi mooy yàlla yey naa ngir mbër ma dem naa bànneex bu ma jiitoo. di jeex rek. dama geesu rek. bu ma leen séenu taxaw nag leen. bu ma leen séenu it di taxaw nag leen rek. mu seen seen gisuma leen mu dëpp daje yéen. bu ma geesoo gisuma leen it dinaa dëpp daje daje ak yéen. àdduna jeena baneex ba jeena dëdd ko jot na ngir Bàmba dem na àdduna weet na Kana ya warna jënan yanaay na Ngirmbar mbër ma tel na ndortel xamanteeg sëriñ dama jangga al-Quran bindub kamil jangga lubari bari kham sama bayi jil ma mufi mom fi moom ba nga xamee nuyoo leen maag moom fi du at mu yàgg nag ndax dama yàgg ci njàng ma ndax xew-xew bi ma njëkk a fekkee Touba mooy 77 di ubbitel marché Ocass maanaam njël benoo xamante googu it sëñ bi fa la tàmbalee wone yitteem ci man ndax dama faa dajeeg ñaari jëmm yu sell yoo xam ne kenn ki jiitu na yàlla ko yàlla yërëm ki ci des nag maa ngi koy nuyu te di ko siyaar di Serigne Saliou Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada لم جيكا داف سي نون دافنا بوليك بروم خام خام بو ياتو دي سيري مديغ بامي كو مان القران لول اوتال نو اي كارنيك بيك ني بو نين ديمي لومو واخ نا نين كو بيند سيري محمد لامن جوب دالنا ما بوليو ماما بو جي خولال بوبام سيري صالحو تاك دوندم لي جيتو 60 صح واي نك 64 نخمال ابا ماكو جخ دا فك ما غنن داوي توتي سيرن باي ما فاب دير ب 1964 لما جيل سي ا سيرن محمد لامن جوب داغانا نك سيرن توبا كو يار ما تخ موميت اي دوم ييب مو جوخ لين واك سيرن توبا من نك مو فيتلي ماك سيرن شالي هو جوخ مكو جوخال مكو بوب 1964 لما سيرن بي جيل سي سي كيرغا مام مكو جوخيت لما واخ موي ا ماغي لا جوخ كو خامني بابا غوني لا waaye wax yi moom ya ci ëpp fàttali fàttewuma ko maa ngi lay jox koo xam ne doomi Serigne Touba la maa ngi la koy jox boo demee nag euh, na nga fa nekkee ndigalam bu la sàmmaloo na nga sàmm bu la bayloo na nga bay bu la sàmmaloo na nga sàmm bu la tëddloo na nga tëdd euh, lu la digal nang ko def lu la tere na nga ko bàyyi te bu ko dara euh, loolu daal la ma waxoon sëriñ bi ñëw jël si ma yóbbu ma nag ci daara yi. li ba may tuuti lañ ko jox. boo nag moom moom ma jël si boppam sax nag ci kër sama kër baay ba ma fekk fa ma fa may nelaw fa lañ ma yëkkati teg cootu njëkk jaar ak man ko tax xabaan jóge fa yóbbu ma njaarim daal di may jox sëñ Moussa Saliou moom moo ma doon jàngal ci jamono yooyu kii itam euh, sama ñaari mag laa doon sëñ mu jaxate ak sëñ Baara jaxate mu jox leen sëñ Cheikh mu di leen jàng ñu nekk fay jàng di jàng di jàng ba bis ñëw mu ñëw njaareem ni damaa bëgg kat soppi seenum jataay euh, waaye nag ba mu daataa ba mu daataa bàyyi njaareem nee na maa ngi ñi kat ca tool yi laa jëm lu ngeen bëgg ma bàyyi leen njaareem ak ma yóbbu leen ca tool yi ñu ne ko Mbàkke loo ci def loo ci def baax na li ñu doon doon lay gone nag loolu lan tontu loo ci def baax na Mbàkke mu daal nuy bàyyi foofa foo toogee diir nag mu jël nu jox nu suñ ma dem sëñ ma dem nag moom jàngale sax sëriñ bi keroog ba mu na ko joxee sëñ ma dem dañu nu sëriñ bi leen fi indi na ngeen xam ne fii fii de jàng na fi waaye ba mu fay ne de kin mënta xam Mbàkke la sant kin mënta xam Buso la sant kin mënta xam Jóob la sant daa yem ak ñëpp rek dàq li na jàng daq li na liggéey bu dee bale moo leen ko moo leen ko dàq bu dee bu dee sàkkit moo leen ko dàq bu dee taxani moo leen ko dàq bu dee root moo leen ko dàq ba noppi dàq li na jàng na loolu day xamante bi moom ci ak ndaw la ba may jàngi njaareem doon jàng sama daara yi bàyyi sëriñ Mor Mbay Cissé sëriñ Saliou Mbàkke dafa daan faral di ñëw di ñëw njaareem ay ngan bu ñëwee njaareem ay ngan tamit day ñëw ci daara ji ci sëñ Mor ay lu lu bëree bëri ñun dongee daara yi tamit ñu nekkoon ci daara ji sëñ bi bu nekkee njaareem buñ jangul rek daanaka donga yëpp këram la dem fa lañuy ñuy lekke fa lañuy nané naane café fa lañuy défé lépp am benn bis nak waxtu tàkkusaan niñ donga yëpp di def rek ñu fekk ko mu tok ci mbaarum seng ma nuyu ko kenn ku ne boo ko nuyoo mu ne la yow noo tudd nga wax ko sa tur ba si ci man mu ne ma noo tudd ma ne bu si laa mu ne ma kuy sa baay ma ne ko sëñ Moon Mbay Siise laa tudd mu ne ah, yow sama doom nga yow bul dem toogal ne ma toogee noonu waxtu tàkkusaan la woon ba waxtu timis ba waxtu gee ba ginnaaw gee muy dugg ci néegam yóbbaale ma ci biir néeg bi bës loo ma ma bësal ko yaramam suñ xamante ci foofu la tàmbalee. sama maam mu jigéen moo ma jox Serigne Saliou. ñu koy ñaanal suñu borom dolli ay leeram taas ci barkeem bi may jox sëriñ bi booba at yi néew na lool ñeewantal na ma lool waaye nag bi ma joxee sëriñ bi euh, lim bëggoon ci man sëriñ bi def na ko ci man te loolu moo am solo te yaakaar naa loolu ay junni junni doomu adama yu mel ni man euh, ñu ngi ñu ngi dund loolu ma dund ak sëriñ bi loo xamante bi nag ci nekkam fi ndax bi ma ñëwee la ma jël fonko ma fonkel go xam mboolem ñi bokkalo nek ci képar gi xam nañ sama digënté ak sëriñ bi fonk googu la sëriñ bi fonk nak yaakarna ku ne jaar na fa ak mom, ndax képp ku jël sa doom jox ko sëriñ bi sëriñ bi dina ko jël tek ko fo xamanteni bi dund ak mom lo xamanteni bi ko netlé da nga nan mom rek nekkon ak sëriñ bi ndax nak lolu moy ak matalé lim doon mat gi mat lim doon moy boko joxé sa doom dana ko dana ko jàngal alxuraan dana ko dana def ci moom yar boo xamante bi fépp foo ko gis muy dox da nga xam ni kii defarub Serigne Saliou Mbacke la ndax yóbbu na ma daara euh, njàpp ndal nekk naa daaru Rahman nekk naa daaru Minam nekk naa daaray daaru Salaam euh, ginnaaw bi nga xamee nag ci juróom ñaari at yu mujj yi jàpp juróomi at yu mujj yi ma nekk ak moom ci kër gi euh, dund ak moom lu bare bare bare bari ndax laata may dem ci daara ja nekkoon na ak moom ci kër gi ku ne xam na ne sëriñ bi boo ko joxee tout tànk da koy miinal boppam ci biir kees gi loolu la ñuy wooyee xale gan mooy ki nga xam day soog a ñëw. sëriñ Saliou nag maanaam kan la lu naqaree wax la waaye manees naa xam ci moom bi jaamu bi yàlla la bu nangoo jaamu suñu borom di doomi xaay mu rasul di ko sell di ko sellal. di ku bëgg yàlla lool bëgg yonent bi lool bëgg lislaam lool bëgg doomu adama yi lool bëggu taalu bi nag te di ci dund léppam rek di son borom léppam di ak rafetal léppam di yërmande léppam di ak sellal doon koo xam ne daal tege ne ci siraatul mustaqim te ku mu àndal ku ne bëgg yow it nga tege ci siraatul mustaqim te ñàkk caa tege nag du tax mu xàddi du tax mu ñàkk yaakaar ci yow ليني وخ نار غان لا لاي ديف باغا تيغي سي يكون هناك غني عن التعريف سيرن صالحو سيرن تبا كو جوف بوكنا يكون هناك كو موج نيم سي ماك بادوت لول ني سي اوب يكون هناك واي نك بوكنا سي ني سي غنا غود فان تيت يكون هناك خامني مو مو نيك جورومي لو خليفام سيرن صالحو نك يكون هناك لا غني ادنا jàng alxuraan ci kanam waajuram ñu ko sa waajuram boo booleel ba watta alxuraan ci kanamu waajuram ginnaaw njàngum xam-xamam nag fekk na waajuram dem waaye mu jàng xam-xam jàng li mu a jàng lépp lépp lépp ci loxo si Modou Moussa bi muy am fukki at ak juróom jëm ñaar fukki at jàng na li mu war a jàng lépp lépp lépp ba bokk ci ñi yaraw ci réew mi jàng na ba jàng séeré yoo xam ni bariwul sax booba ci réew mi bariwul waxuma la bariwul koo fi jàng ñoo xam ni ka ko doon jàngal sax dañ ko jéggaane dañ ko fay andi kon uh, njàngam sori na lool lool lool te boo fukki at ak juróom-ñeent la mu noppi ci njàng ci la sa ci la njëkk a sanc daara nga xam ni moom la njëkk a sanc ci fukki atam ak juróom-ñeent. sëñ Saliou Mbacke moom ginnaaw bi mu doonee doom ci Serigne Touba Xaadimu Rasul ak wàllu waajuram yi jigéen fi ñu bokk ci cosaan ci mbaakol ñu xam ne naka jekk dundal diine ak jàpp seen jaamoor bay dunde jaamu yàlla ci lañ mas dekk ku yeman ci loolu rek mu doy ci xam ci cosaan waaye nag dafa boole loolu lépp nag wut fi boppam wut yi fi boppam mooy lan mooy liy maye lu baax lépp sëñ Saliou ci ndaw ba teg mag mos cee jóg. am na alxuraan am na xam-xam waaye jëfe na xam-xamam jëfe xam-xam nag li muy baax baax tamit sellal ko. mooy di ko def te yàlla tax loolu sëñ Saliou Mbacké def na ko ba tax ne moom lislaam moo doon ab toolam bëgg sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yeesal ga ko waajuram mu tedd wa yeesaloon fam ki teg tànkam mu teg ko fa na ko jekk ci loolu la nekk ci ndaw ba ci ak mag lépp loo xamante ne nii màndargam diine la wala lépp loo xam ne baax la lépp loo xamante nii mandargam sakku yiw la sëñ Saliou mosu cee xam dara. sëñ bi dafa amu fit te dee la teel a am ay responsabilité teel a dugg itam ci samp ay daara ak ak ak dimbali xeet wi ak dimbali dimbali dimbali dimbali dimbali dimbali yar gu ne jàng leen alxuraan yar leen jàng leen liggéey di ci teel a jublu waaye ba mu koy def boobu mënu ko ndax jurul googee du nekkoon lépp luñ daan ñam di ko luñ daan lekk. fii ci ndakaaru gii la ko daan wuti si ci ci njëlbeen ndakaaru gii la ko daan wuti mu demee ba yor dara rek lu mel ni ab sumbul ak yooyu la la daan dajale rek dajale dajale sumbul ak yu mel noonu indil ñu ñu ko indilee ñu di ko di ko bañ a gaawtoo di ko nekk ndànk-ndànk topp su nekk ci liggéey bi xam nga mas mas nay wax ni sax xam naa liggéey dara gënt wóor de liggéey sëñ Touba ak ak ak am jox ko sëñ Touba. ndax man de moo ma ko tàmbalee léegi si gis naa ne lu ma doon wuti Ndakaaru wutiituma ko. lépp fi ma nekk la may fekk. te te te te te lépp du ko daan wuti. Ah, booba siyaan mii rek ci la ñuy siyaan mii rek booba ci la ci la naan. Eh, ak déeg yi nga xam ni nag yi nag yi dañ ciy jaar ba xuus ci xuus ak xuus ba nga eh, eh, siben si jaxasoo jaxasoo goo xam ni boo ci naanee ba sa biir fee sax daanaka doo xiif ci bis bi Serigne Saliou Mbacke yàlla na fi yàgg te wér luñ yàgg a miin la ba tax na kàddu yi nit ñi doomu aadama yi miinoon nañ kàddu googu ba tax na kenn mës sa bàyyi xel ne Serigne bi dana bis dana ñëw mu wane gannaaw ndax nag saxoon na ci làmmiñu taalibe yi saxoon na ci làmmiñu mbokki jullit yi ba tax na kàddu googu ku ne miinoon na ko maam yàlla nga fi yàgg te wér Serigne Saliou Mbacke yàlla na fi yàgg àgg na ci sax am ñu daan wax naan Serigne Saliou Mbacke yàlla na ko yàlla saxal Touba loolu li ko waral mooy yërmande ju mu amoon ci jaam ñi ak tegoo ki mu tegoo woon li ko sëriñ Touba jiital ci taalibe yi mu tego woon ko ba tax na taalibe yëpp euh, fu waay mën a jóge ci gox yu fasantikoo yi mu jox la sa wàccuwaay daral la euh, taxawu la berndeel la euh, ñaanal la loolu yaakaar naa yaatu woon na ci jëmmi sëriñ bi lool. maam yàlla na nga fi yàgg moom yàgg na koo dégg ndax dafay nit ku bari njariñ te gone boo ko dee jariñ faaw mu di la ñaanal. te li ca gën a yéeme nag mooy ku la ko gën a xam ci gone yi gën la bëgg sëriñ Saliou ku la ko gën a xam dàq dàq la koy ñaanal yaakaaruma ne neex naa daate ñu ne ab sàngam la tàmbali dafay mel daañ ña ko xam ba ñu ko xamee lañ ko jox ak cofeel ak fonkeel ak orma ñu féete ak ndawit di ko ñaanal ak yàgg ko wér waaye duwul ni sax dafa dem ba doon xalifa ñu soog ko koy ñaanal donte na ñaan bi nga doog a gën a siiw ca yooyu jamono waaye ehm, ki njëkkoon ci ñaan ga nag moy jëm ju bax ki ngeen jógee léegi di serigne Abib job wajuram mu ñëk ci ñaan ga ndax ba nga ba nga xam sun borom dogal mu gëna a ci njaareem bay di ya mu defoon mboolem la mu ci ñaanon lepp sun borom may na ko ko. ba tax nak ñepp bëgg mu yagg fi momit it lim fi am tax na mom momit momit mu daan wax ni na ngeen ma ñaanal na ngeen ma ñaanal ma yagg fi ndax mo fa yagge seen njëriñ lay doon. nee na nak mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. baax waaye ñu ñaan leen yéen. nee bu baax waaye yéen na ko ñaanal bu baax. loolu moom loolu ma wax na ko ñu koy dégg ngeen ma ñaanal ma yàgg mi ndax ma fi yàggee seen njëriñ leen doon loolu mu wax gis nañu ko ndax formé na fi ci réew mi ci ci ci ci ay formation yoo xam ni ay génération yoo xam diggante 1934 ba ba ba 2007 bi ñu ko mës a gis bi ñu ko mujjee gis maanaam génération bu dem beneen ñëw génération at yooyu yëpp ci daara la ne amul demul fenn soxlawul dara bëggul dara nekk ci daaray jàng ak jàngale ak liggéey di di di jox ki fi nekkal sëñ Tuubaa muy liggéeyee ba ñi fi nekkal sëñ Tuubaa ñëpp seeraloon nañ ko ni eh, bokk na ci ñi ëpp addiyee ci yoon wi lu mboolem li ñuy liggéey ci yoon wi it moom bokk na ci ñi ci ëpp lu mu ci def ba ci jumaay Tuubaa dañ loolu ndax loolu rek moo moo doon liggéeyam jàng ak jàngale ak liggéey joxe sëriñ Saliou Mbacke yàlla fi yàgg te wér day mel ni yéene ji nga xamante ne ni moom la jullit ñëpp amoon ci moom taalibe yépp tamit am ko ci ñoom am ko ci moom ndax jox gim bopp jox boppam lislaam fàtte boppam jox gim jox boppam yoonu murit fàtte boppam ndax lu mu mës a liggéey sëñ Tuubaa la ko jox muy am mbayam muy àddiyee yiñ koy jox lu mu mës a am rek ku fi nekkal sëñ Tuubaa la ko delloo ba fàggul toon boppam dara te bi sëñ Tuubaa ji di egsi ci moom boo fekk na mu jëm mag ndax ci juróom ñaar fukki ak juróom la jotee doon sëñ Touba nekk xalif général de Mouride tax nag ci loolu nag àddina bépp nag yéene ko ko àddina bépp tamit yéene ko mu yàgg ci loxoom ba yaakaar naa loolu ñëpp maasandoo nag def seen gémmiñ fu ñu tuddee turam ne sëñ Saliou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér yéene gi ñu koy yéene liggéey boobu mu mu muy tàmbali te bëgg mu yàgg ci loxoom yaakaar naa ki sama xalaatu bopp daal moo indi ñaan googu ba ko tudd turam rek teg ci loolu. man nag ba ma ndax mu mujj euh, jël nag ni ma daa bëgg nga demal nga di nga ñëw fii ci kër Touba gi yoral ma ko ba ma ko yoree diir itam damaa jékki-jékki sax dawee Touba nag dawee Touba ñëwaat jëful ni damaa bëgg a toog njur mu fekkaan ma mu ñu waaw loo fi wut si man dama dama ko dama bëgg nekk sama moromi dong yi rek bu ñuy jàng njëlëg bu ñuy jàng xasi ak lépp may ànd ak ñoom mu ne ma da ngaa xamul la la la ma la dénkale da nga koo xamut ak li ma lay def loolu da nga koo xamut boo ko amoon de doo ko jënd lii ma daal di sampaat sama xel booba dugg oto amul dugg saret amul yéegu fas amul damaa daal di waaxu rek daal di wuti Touba ñëw toog nit sama liggéey léegi-léegi mu ñëw taxaw ci bunt ba woo mu ñëw mu batale may batale daal di bi xabbaan ba mu wéy bat léegi-léegi mu wàññi ko itam taxawaat foofu ci xay gi woo ma daal di wéy jàppaleel ba mu wéy lagan ba mu wéy wéy jur gaa yi li mu toog ci kër gi mu bëriwul waaye nag li ci ëpp moom aju moom fi la koy fekk moom aju moom li ci ëpp moom dana ko fi di fekk léegi-léeg julli ak mag ñi nga xam ne ñooy mag ñu baax ñi ñu ñu ñu ñu ñu añ ak moom yenn takkusaan si ñu ci di waxtaani seigne touba di defar ataya ba ba ba ba julli ci ñu soko a tàggoo dem lolou mom bo bo bo dal dal ko dal dal daanu daanu ko def waye man fi ba jaar ak sëriñ bi dafa bari waye na ci jukki tuti wax la ko bi bi ginnaaw biñ mako joxe bama nek ak mom ci kër gi euh, dafa am ben donga bo xamanteni bi yakarna ñi fekke won jotaay bi ñepp xam nañ dongo boba xamna dara jëm nekkon ñako fekk ñiko fekk tamit ñu ngi fi euh, dafa ma ma sa fekk ci kessu serigne bi serigne bi téye ma ci biir kess gi yónni ma ma genn am lu lu ma jëli wara ñëwaat ci mom kooka ma tijji buntu bi rek mu door ma bi ma dóoree may bori ma dem ci serigne bi serigne bi gis euh, deret ji ñu taq ci sama kaw mu jël kala gi taf ci bët yi daal may laaj lu xew ma leeral ko ko Euh, mu nañ ko woy mom dongo bobu bis bobu daño woy dongo bi ba andi ko ci mom bi dal nako nañ ko dor mom man ba mané doyna doy na ci kanamam biñ défé lolu keroog la ma sa gis señ bi dorul nit te yakarna euh lam gis ba tax mu def lolu moy deret jaag te ku ne xam né señ bi da fonkon fonkoon doomu rawati na ndaw bi né ci daare got ñu né fa ak ma sóob bo xani señ bi da ko doylo won lol di ko gi ma tudd légui de señ Moussa bousso sëñ bi jiitaloon ko ci suñ kanam te boobu man ma ne ca daara ja maag ko ñuy wax sëñ Alaaji Si ak sëñ Xaadim Bay ak lim bu baree bari nag ci ay gone sëñ bi dafa nu daa wax ne dàqu alxuraan magu leen ëpp leen xam-xam waaye njiit kenn la mën a doon te def naa ko ko waaye nag ni ngeen xam ne ki jur way juram ak ki jur fa loo bokk te ku la gën a jege sëñ Tuubaa la gën te maa ngi leen di seeral ni moom mii mi ngi ci yoonu murid sadiq daa loolee nag jotaay la boo xam ne rëy na ci nun waaye la mu ca doole nag laa bëgg a nett léegi dafa wax ni yéen de nii ma leen gisee dafa mel liggéey ci yoon seen yitte la dund ci ak murid seen yitte la loolu nag comme doon sa sa yitte waris la caa dimbale ma bëgg leen caa dimbale ma xamal leen li gën ci ab taalib fexe ba doon murid sadiq murid sadiq nag lu jafe la nu ne ñu ko ne firé waaye prix mi ci gën a gàtt murid saadix mooy ko am lu kenn amut la ko tax am lu kenn amut nag dafa def nu kenn defut murid saadix mooy koo xam ni bu demee ci njàngum alxuraan ma daf cay fonk ba bokk ci ñi ca man te xam ngeen ni mag ñu jëkk ñi daan nañ dem ba samp kër bàyyi fa soxna sa laxas ne ba dañoo dellu si dañuy wattu alxuraan daani murid saadix mooy koo xam ni bu waxtu julli jotee day laab te fonk julli ga te bokk ca ña ko dàq te xam ngeen ñi nu fi jiitu woon day bu ñu dàqute julli dàqunu leen ko daal di cee dolli mori saarix mooy koo xam ne day nangoo liggéey ba mel ni du wàcc te xam ngeen ni mag ñu jëkk ñi daaw wàcc daal cee dolli nag yett yi nag mooy yi gën a gaaw a yéege ab murit muy taxan ak rooti ak buub dafa ma daan faral di yónni ci ay ay ndaje ndaje kilifa yeeg ay ay ndaje yu bare bare dafa ma daan faral di yónni ne ma fu ma la fa yónni na nga xam ne la ma fa ñor du kaddu ya du kàddu ya nga fay wax la ma fa ñor mooy sa jëm mu teew fa ñoo xam ne maa la yebal ñoo xam ne la ma fa war def naa ko loolu nag bu jàllee ba noppi kàddu ya nga fay wax ma nga aju sa diggante ak nit ña nga xam ne dégagé na responsabilité am ci koy moom kàddu ya nga fay wax ma nga aju ci sa diggante ak nit ña bu fekkee sàkku nañ ko si yow bu boobaa xam nga li nga war a wax ndax jaar jàngal nañ la li nga war a wax waaye rikkiwaay bu boobaa na nga fexe ba waxal leen lu la am lu leen amal njëriñ waaw rikkiwaay na ngeen fexe ba boobaa nga wax ak ñoom leen amal njëriñ moo tax doo gis kenn ku mu yar mu tàmm wax lu amul njëriñ ndax ndax ndax ndax su la masaan yemal fi barab soo ñëwee danaa la laaj danaa laaj keneen danaa la laaj barab ba nu mel ñoo fa fekk gis nga diwa gis nga nangam ak nangam nu jataay ba demee woon ndax wax nga fa boo fa waxee loo fa wax lépp dana la ko laaj. dañoo ànd ak moom dem xel koom su ma jumul booba yaakaar naa daal su ma jumul yaakaar naa daaray daar rahman lañ nekkoon ci xel koom gane fa am fa lu ma fukki fan bay ñibbi waxtu boor 9 heures gi suba sëñ bi génn ci kër gi dugg ci oto bi toog góor a jëy taal oto bi ralentir bay bëgg dem mu geestu ci ginnaaw oto bi nee na sëñ son bu booba man lay wax ñu ne ko ah sëñ son yi bu tey xam na dañu ko doon xool waaye gisuñu ko mu ne nañ ko mu ne nañ ko seet ñu wër ma wër ma wër ma gisuñu gisuñu ma lépp sëñ baa ngi toog ci oto bi ñu ralentir am ko daw ñëw na ne am daw ñëw na day sëñ bi day sangu am ko bëgg a daw pour xam naa ne fëgg ma wala dara mu ne ko déedéet day sangu nañ nañ nañ toog xaar ko ba mu noppi ma sangu solu te booba xaw ma ne sëñ baa ngi may xaar ci oto bi ba li ma doon def lépp mat ma ñëw fekk sëñ bi ci oto bi mu muy ralentir ñëpp ne may sëñ baa ngi bëgg a dem waaye yow lay xaar ma daal jël samay bagage dugg ci oto bi toog ci ginnaaw ñu taal oto bi am ngeen kilifa gu nekkan ci oto bi xam naa ne bëgg na maa yedd tàmbali di wax rek sëñ bi ne ko sàllaw loo ko wax de tooñ ko ndax waxtu sàngam la ñuy dem da yomb na lool te su ma ko waxandee dinaa ko fekk ci oto bi xoolal maanaam sëñ Saliou fi mu tolloon ci ci ci ci daraja maanaam fi mu toll woon ci àdduna maanaam maanaam loolu leçon la boo xamante ne di kenn ku yilif ay nit ku nekk war ngay bàyyi xel loolu. li ma ci jaaxal lii ñëw ci kër gi kenn xam nu mu toll bari waaye boobu xaay xam nga moom bañ sant liggéeyu sëñ Tuubaa bii nga xam ni moom nekk ci loxo sëñ Modou Moussa nekk ci loxo sëñ Fallou ba ñëwee seen loxo sëñ Abdou Lahat moom lépp maanaam sëñ sëñ Saliou ci man mhm. boobu luñ ko jox mu jox sëñ Tuubaa. dëgg la luñ ko jox mu jox sëñ Tuubaa. am na gaal gu ne ci kër gi yoo xam ne dañoo romb yu la ko wutal lu ñëw rek mu sol ko ci. am na bis boo xam ne sax dañoo toog a toog a toog bu takku saa ni suuf mu wóor may tey jii kat ab añ amul ci kër gi. Mhm. ma ne ko waaw gaal gii mën nañu fee jël junni joxe ko ci kër gi ñu def ko añ suba junni bu njëkk ñëw ñu wutal ko fa ma ne ma ëpp naa def ma ne ma ah, alal eh, eh, liggéeyu taalib yi dama koo ñemewul. dama <laughs> koo ñemewul liggéeyu taalib yi dama koo ñemewul. télévision dañu pass pass bi da pass pas bi da bari pass pass bi da reuy lol am na ñoo xam dañuy fas ci seen addiya di ci fas ba tufli ca boo mënee dellu si junni baat mënoo mënoo dellu ci tufli di kon nañ ko fa bàyyi te jàpp ci yalla rek nga xam ne naka jekk mom yef ya nga ñew waye japp na ni mom mënu ko jarign ma sant daaraam yi and ak mom te toqiwuñu ba yef yi da metti lañ see ni ngeen defa woor wa njàppandal jàppandal ngeen señ bi leppi ba gem yàlla na jàppandi seeni mbir ba ngeen defi wuur li gën ci nit ku ne mooy muccug tey ak yal nañ ko may waala gan ñuy sant cant gu foor te ñaari leer yi di leeru àdduna ak fanu jëm yal nañ ci leeral mbirum waa ñaaru bañ defi weer te gaali wal yu xuus ci géeji yërmande nag yal nañ ko teeral ca ngi jaan jox ku nekk sa muur xàbb ga muudu ka du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 quarante-neuf mille hectares yooyu sëriñ bi da daan da ko daan bay bari yaakaar naa espace bu des du fa am loolu mooy xelkom xelkom di euh, tool yoo xamante bi euh, la fa tuuru ci ay ñaq ci ay donga euh, dongay tarbiya yoo xamante bi ay ndaw lañ ay nit ñu sell lañ ñoo xam ne njàngum alxuraan njàngum xasida la sëriñ bi jiitaloon ci ñoom liggéey bi soog a ñëw te liggéey bi mën naa ne li sëriñ bi def ci ñun moo ëpp lañ fay liggéey ndax boo dee xool daara yi fukki daara la ak juróom diggante daara ju ci nekk ak morom ja juróom-ñaari kilomètre la euh, daara ju ci nekk ñett téeméeri nit ak euh, ak juróom fukk daana fa nekk sëriñ bi warloo leen seen lépp dund bi àgg na ci daara yi nga xam ne euh, ràññee nañ ko ci jot nañ faa nekk yenn daara yi danañ sóor ñaari saako yu ceeb par jour yenn daara yi danañ sóor ñetti saako yu ceeb par jour yenn daara yi danañ jël bu dee wàllu reer bi ñaari saako yu sànqal daanañ ko jël ngir reer bi tàngalum café bi amuluñ ko koo waxtu. lu mu mas da liggéey da koy jox ki nga xam ne moo fi nekk Sëñ Tuubaa mu def ko ci liggéey bi te ku yàgg la Alaaji Maysa Sekk Thiès la nekkoon moo nekkoon représenté ak xalifa de Mouride la woon itam ku mag ku kilifa gu mag la woon Thiès ak réew mi ko xam moom la daan peeseloo gerte yi ci daara yi saw yi nee na ma 1950 nangam at ma laa fàtte waaye 50 nangam. نانا ما بيسي نافا جالي خبان جوني بريو سانتون تي جات خمغا بابا جامونو سانتون كو خم لان لتي خالص بابا كن كوي باي سانتون امو تيريو تلولو بيان دارا لون موي خبان على جمعي سيك مو مكو نتن لواي نغا خمني دولي مو موك نجك ام تيريو ndax booba ku mën a bay 100 tonnes ci réew mi bu fekkee am na fa it bëri wut dafa am fii ci njurul lu fi mas a xew loo xam ni diggante sàmm ak dongo yi bay seeni tol la bab jote am ca bañ dag ca baaraamu jëmm joo xente noonu koy siyaari mi ngi fi ci dëkk bi sëriñ bi mettit lu ko lol ci bir mettit lu ga nak bam mu dongé dongo ci lam leen doon leeral moy man day dama daa ay nit di leen fi andi ñu di leen wutal luy tul tul nag li wala fi wax ab ñag la at moy day laaj dabbali xëy ñong ko doon defaka sax gejj da ci am waaye nag tey moom dama bëgg a jaar ak yéen ci waneen yoon yoon woowu mooy sëriñ Touba ca Mbàkke Jolof ba fa lu mel nii dee xew am na fu mu jaaroon ak donge ya ci loo xamante ne bii day mel ni moo gëntul ndax mbir la moo xam foofu ay asafaan war a amee doo ko fekke jox ko ña mu ko jox ak na mu leen ko joxe ak nañu ko xame ak nañu ko jariñoo waaye nag lu rëy la lu sun boroom nangu la maa ngi ci profité di nuyu maam Cheikh ngay bëgg Bamba ca Mbuur am na mbokkam moo xam ne benn colonelu gendarmerie la woon booba la Casamance di metti mu jóge fay ñëw ci sëriñ bi àggagut nag waaye mu jaar ci ku baax di sëriñ Saliou si ni ko dama bëgg kat ku ma dimbali ci sëriñ bi mu bindal ma ab téere ndax feeñu ma yóbbu waxuma sax robele song yi ñuy song waaye miin yi ca àll ba ne fa mucc daa jafe te ma bëgg a mucc waaye sëriñ Saaliw si moomu daal di xalaataat la sëriñ bi waxoon mu wax kenn ci donga yi muy kii toog tudd sëriñ Dame Kébé ni ko loolee sëriñ bi waxoon tenk ko bindal kooku bindal ko ko sunu boroom dimbale na ko ba mu demee ba ñu ko fa jëlee matul ayug bis kaa ba mu nekkoon robare song ko lakk ko waaye nag dongab sëriñ saa yu ak na muy doxee da nga gis ko ñëw bëgg ku la ko bindal mu ni oma ci woon ndigal. ndax dañoo yàgg dañoo dem ba yàgg sëñ Abdou ko ah eh, ñun de di daal di woo kilifa yi kilifa yi kilifa yi nga xam ne am na ci ñoom yaakaar. mu leen ñun de damaa bëgg ànd ñun ñi liggéeyal sëñ Tuubaa ci sëñ bu ko seetaan nii ba dajeeg sëñ Tuubaa sëgg danañ rus. ndax sëñ Saaliw ñii kat dara ndax liggéeyal sëñ Tuubaa kon nag ñun leen liggéeyal sëñ Tuubaa ci moom. kilifa gune moo wax ko ne ko defal ma fii am néeg yow defal ma fii am néeg yow defal fii lii defal ma fii defal ma kër ga lii moo soppi ko lii moo soppi ko hmm. waaye sëñ bi àddina moom mus ta bëgg a teg ab muul ngir boppam musu koo xalaat sax nag musu koo xalaat musu koo xalaat sëñ bi donk yi la njëkk tabaxal ci àddina hmm. te dong yi ba mu demee ba mu leen di tabaxal boobu day lu mënta ñàkk ndax booba ngelaw ñëw ci daara ja faagaagal néeg ya faagaagal mbaar ya hmm. faagaagal lépp mu daane ko mu ni nag ginnaaw dongo yi te booba ginnaaw dongo yi ci ñax lañ dëkk nga xam ne booba euh, lali ñax yit moom lañ daan dañ daan ràbb ay gittax daal di def ay bant ay ay lal mm-hmm. daal di samp ay bant daal di ci teg ci kaw di ci tëdd mm-hmm. li la tiim di ñax mm-hmm. sàkkit wi ñax lal bi nga tëdd di ñax te ñuy taal mu ni nag nii ngelaw def sama daara jii ci doomi jàmbur yii ma te bàyyi leen fii te xaw ma xaw tey jii bu fi ab taal nekkoon tey jii ñëppay lakk kon da da da booba la daal di jël nag ay matuwaayam ne day tabax. ne boobu moom boobee ba mu koy def boobu mënu ko. daana wax naan man de bu ma rombee tabax bu gudd ñu ni ma léegi ab taalibee ko moom sama xol bi day seet dugg waaye wóor na ma bu ñu ñëwoon maa ko moom kersa laay yi nag moom foofu fi ñuy wax fi bi téene. daf leen a bëggoon mbëggeel goo xam ne kenn ku ci ne dafay mel ni lam am ci yow ma ne say waajur amuñu ko ci yittewoo leen nag te sonne leen ndax yaar la arab di wax ya ak kayfiya boo doxee ci ko ànd ak mbooloo ku ne yaar yooyu léeg-léeg benn not ci moroom ja te dañoo war a balaase kër gu rafet wata bu rafet Euh, dund bu neex loolu aw melo la waaye nag euh, la nga xente mooy la am solo mooy la ne ci biir xool ñu di ko defar ak la ne ci am xel ñu di ko jubbanti ba di ca def ak xam tayit day mel ni léeg nga gis ko yor mbooloo waaye dana leen ñemee woon xoy-xoy adduna waaye du dugg ak ñoom ci wàllu biir sëriñ bi nag lépp lu ñuy xam dafa sawaroon ci xamal ko ab dongo te donge moom mooy addunaam donge moom mooy addunaam ndax daraan wax ne sama sunu waajur eh, eh, eh, jàng bi may andi got daaray got ma nekk fa daf ma ne fii li ma la fi andee mooy dama bëgg nga xam ne ma li ma la fi andee ma ne ma ne ko ah, mu ma dama bëgg nga xam ne fii li ma la fi andee mooy sama liggéey mooy jàng ak jàngale ak yar damaa dem nag ba àdduna gàllankoor ma ba mënatu ko mënatuma ko waaye mooy sama liggéey nga xam ne lu ci ko damaa dem waaye du bokkul sama liggéey lu ci dolli ko damaa dab nii dama ko waxee waaye sama liggéey mooy jàng ak jàngale ak yar te maa ko daan defal sama bopp fii dem naa nag ba mënatuma ko ma bëgg nga féete ma fi nga xam ni bi mu nekkee xalifa ak bi mu doonee lépp daara yi dong mooy yitteem bu nekkee ci biir nit ñi it mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi contrôlé daara ya te sakkoon na yoo xam ne daara yi ca lay dem nga xam ne daara yi dong ci la sakkoon na bis ci Tuubaa yoo xam ne daraan wax ne nañ ma ko may muy talaata àllarba nañ ma ko may nga xam ne nangu wóoru recevoir kenn gone yi rek donga yi rek maanaam tawféex ji nga xam ne daal toujours su ma ko fàttalikoo damay damay damay damay damay damay damay bëgg loolu mooy kaamil bi nga xamante ne nii waa Mbàkke yi dañ koy dañ koy donn wante nga xamante ne nii kaamilu cosaan la nga xamante ne nii ku makki waa Mbàkke rek yaa koy yor kaamil bi nga xam ne sëñ Tuubaa jàng na ko junni yoon maanaam bi nga xamante ne dem dem na ba ba jógee Mbàkke Kajoor ñëw ci ay loxoom nga xam ne yàgg mooy doomu sëñ Tuubaa boo xamante ne nii maanaam yor na kaamil bi li may fàttaliku mooy kaamil bi saa si ko daal génne waaye saa su ko génne wan ba da koy jàng toujours ñaar lu ci lu ci gën a bëri daf may woo ma ñëw muy jàng kaamil bi par xët ndax kaamil bi dafa xawa a rëy dafa diis maanaam bu jàngee wenn xat jox ma ma téyel ko jël wenn xat jox ko jox ko te kaamil bi ci ak ndaw dama ko leen dégg sëñ wala wala fa la sëñ Moussa Kay daan ko dégg ci xese yi ñu naan kaamil mag moom bi dem ba kaamil bi ñëw ci loxo yi sëñ Saliou Mbacke mu di ko jàng toujours ngir maanaam nga nga di ko téye di ko jàng loolu dafa def dafa am lu rëy lu mu doon def ci man. moom tur wi tur tudd wi ci boppam. moom la mënut woon. mënu ko woon. musta nangu itam ku ci giñ. musu koo nangu. parce que dama fàttaliku benn bis mi ngi toog ci néegub ñax bi. na toog ci mbaar mi am gune gu ci giñ bu mu fëgg génneegu ñax bi mhm. tuuti sàkket ba daanu mu wax ca kaw baat bii riir woowu da ngeen koo xamut du ngeen ko xamut du ngeen ko giñee du ngeen ko fooye mhm. ëpp na ci gémmiñu mhm. ku ci bëgg gudd fan mbaa nga bëgg wërsëg waru koo def fab sëñ bi moom ba ci yëri sëñ bi sax yëri yi bi sax yëri sëñ bi sax daanaka daanaka xawu ko mën a jariñoo am na bis boo xam ni danoo fekk njurul bi xolam sedd ca nañu raq sàkkiti kër gi seetale ko noona mu ne ah seet saa yi daway daal leen bëggal tey mm-hmm. daal di daal di daal di jëli lu gaal goo xam ne yëre seen tubaab rek ci nekk tey jikka damay bëgg bëggal waaye gaal googee ba mu demee ba war koo ubbi day lox di lox ba daanu ci gaal ba daanu nekkoon juróomeelu xalif général des Mourides wuutu woon magam yu baax yi ci xilaafe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Serigne Mourou Moustapha Serigne Fallou Cheikh Abdoul Ahad Serigne Abdoul Khadr Mbacké ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre bii ñii àndoon ak moom di fàttaliku bis ba nga xamee ni jot nañu xibaaru ni Serigne Saliou Mbacké wujji na boroomam sa dem gi daa teesu sii woon kon yëgal njotu am soo foofi nit ñi bindéef yéeg rab yi ñépp la xam fasaŋ nag ak mbaam ganaar yeeg ba yi ñépp la jooy sa dem gi mbas la lu nit muñ muñ gëtam ya kero lu munu waxul ci jëmmi boppam maag sa bi bu amul ba ci yaramu boppam sax fu mu nu ca wonut amul ba ci mbirum àdduna fi mu ci toll ba ci diggam ak parisada wax nañu ca yu leer waaye ku ne nag ak la tax a tax a jug nun booba gis jëmm ji siyaar ko ñaanal ko ak mu jàppale nu ba dem Dakar yombul boobu loolu lan bëggoon ba ma demee ba ñëw ne ma ne gor ca wax ja dama du xam nag alxames jooyee ñu gisee ajuma ja doon julli ga wala gaaw ba lu mu ci daaw waaye leen la ci ñaari bis yi ba mu ñëwee altine talaata laa dem Afrique bi ba alxames ca guddi ñu xamal ma ak nelaw foofa maa fa doonoon ndaw lu gën a sës ci sëriñ bi loo xam ne bu ma toogee lu dee si siyaari wala lu dee si ko joxe ci si mañ la koy jox waaye fekk nag boobu ab am am doonatu sama yitte ci àdduna tey mm, bis bu ne ah, ah, maanaam ab yóbbu dafay jóge ñëw ku xamutoon ni dem naa xamoo dañoo jikki ci gis ma nañ gisee ñëpp waaye nag lam nuy metti metti xam nañ ne waaj na ko ndax ba mu nuy yónni dunu yebal ci daara ji ma maa ngi ñooñu ñu ta ah, tuddoon waajtaay wu mel noonu la waaye sunum xel daju ko woon maanaam maanaam bu la defaree def ci yow gëm yàlla def ci yow nga xam ni loo xam ni même bu la neexul doon nga ko séentu ndax kuy dund ku ne dañuy séentu ne da nga fi jóg. suñu borom defee coobare it ñun ñëpp li ñu gis mooy moom la neex moom la neex yàlla mu kum bind dina la fi jëlee waaye nag eh, eh, nit dana dem fa ba ba foo ne da ngay namm eh, dem dem nag añi sob liggéey liggéey nag ba war a dem añi wax de metti woon na ci noonu waaye nag dékku woon dañ ko bu baax a baax saalitun daal saalitun ndax xam nañu lim fi def. xam nañ ki dem kam la xam xam nañ ni dañ koy fekke noo ngi ñaan eh, eh, sunu borom dimbali leen ba bu ñu teggi suñu tànk fi mu ko fi mu ne ko tegaloon ban fekki ko. waaye nag ñoom ñu baax ñooñu buñ lay taxoo ak ak di la yar ak di la jàngal bés bu mel noonu moo taxoon ndax booy fàttale ko keroog ba ñuy denc sëriñ Saliou Mbacke boorooma la ñuy bari bëri bëri bëri bëri nga xam ne dafa nekkoon ci ay donga kenn xamul nu mu toll. la fa nekkaan ci ñoom yar kenn xamul nu mu toll kenn dégg fa ak on um wala ak ah ñëpp dañ ne teg ndax waajalan na leen ngir loolu xamalan na leen seen suñu borom xamalan na leen suñu borom ay sañ-sañam ay dogalam keroog kay la sëñ baaraam si am si Mahamadou Lamine baaraamam sëñ Fallu waxan keroog ba mu ko tiimee loolu képp ku ko dégg rek saxal keroog sedd na ndax ba mu tiimee sëñ Saali ñu koy jullee nii dana man de li ma mën a wax mooy ab jullit a ngi nii tëdd as gor a ngi nii tëdd xam nga nun xam nga nun turoo yi nga tudd bi mu amee la muy soog a jirim ban ñàkkee rek bàyyi kenn xamul ko waaye feeñul woon ci nun yëgunu ko woon yëgunu ko woon suñu yaram bi loolu lañ jirim nag euh, danoo féete woon foo xam ni bàyyi mënu faa féete doom day mënu faa bi sama bàyyi làqoo boo noo ko ca daara njurul ji mu ni gone yi kat nañ leen ko nëbbu am magum taalibe moo xam ni moo ko wax sama mag moo ko wax ca daara ji daara ji daara ji am ko ci wax sama mag nu diw ci sëñ bi ni ko nu dañoo dégg ñu suñu bàyyi daa faatu mu ni laa ilaha illallah mu ko leen ko wax ñu ni ko xanaa diw mu ni tooñ na ma de waaye yéen da ngeen xam ni ñàkku leen day ñàkku leen bàyyi man yàlla dafa dogal ma am fa ma nekkoon di sama kër nekk fa ak samay mbokki taalibe ku ci mel ni sëriñ xaadim Njaay ku ci mel ni sëriñ xaadim Jaw ño bokkon ben jotaay bis bobu di waxtan man ma genn dem côté daru khodous bi ma rombee Tayba sek mi nga xamne mo nekkon ak serigne bi man ko romb di togn nako Tayba ana serigne bi mune ma serigne bi euh ma mané kon maa ngi dem après magi ngi wat mais ba kër ga tok fa ak ñi wara togal a muy ñoom man lim euh Xaadim Njaay daal dik ci jumaa ji woo ñu fekk ci leen ma ci jumaa ji bi mako waxé nak ni mako waxé ak ton bi mako waxé jaaxal waaye bi ñu àggee ba ci buntu kër ku tedd ki rek noonu la yëgee xibaar bi euh, muy xibaar bu tiis boo xamante bi dal na ci kaw àdduna bi yëpp bis boobu ñu ñu ñu dundee ko noonu yàlla dogal nag ñu bokk ci ndaw yi nga xam ne euh, teewe nañ euh, denc bi ànd ak sëriñ bi gunge ko ci oto bi ndax wax dëgg yàlla dama bokk naa ci ñi topp ci oto bi ci jiitlanteeg moom ba fi ñu ko waajale biñ jëlee bi matelas bi ñu tegoon sëriñ bi bis boobu ma jël ko xaadim Njaay jël mbàjj mi euh, xaw ma xaadim jaw ñoom ñaar am na ko ci jël mbàjj mi bis boobu waaye matelas bi ma jël ko teg ko ci oto bi góor a jëy dem ba ca buntu gannaaw ba ma jël matelas bi wàcce ko bis boobu laa yëg ni wax dëgg yàlla nag suñu jàmbaar ji euh, wuyu ji na suñu borom te bi ma tegee matelas bi néeg bi sëriñ bi nekkoon am boolu reer bu fa tegoon boo xamante ni mooy ndab li nga xam ne moo daan jóge ci mooy boolu boppam bi bis boobu laa ko génne defar ko daan ne ña fa nekkoon kaay leen barkeel reerub sëriñ Tuubaa bi mujj ci mu mel ni kon dëkk ak sëriñ Saliou Mbacke saa soo yeewoo teg ko bët di jonjoog moom nga yeewu gisatoo ko nekkoon na lu diis ci ñi nga xam ne ñoo ko jege woon lool ña àndan ak yow ca njëlbeen ak ñi mujj ci ñoom ñom ñépp a da nga wétal njabot gi ñu luum say gone ken amulen yaw rek yaay kiko am say mag mi def yëbu ya len defar banyuham xam say donga ken amu ay gaynde lañ ci jëfël cheikh bamba wut amal bur yalla sax ci jubal yaw mi islam mbàkke du am xol yépp banku na xam insaan nga kaamil nga lii moo ko gëm danga maton, ki nga don te da matal ñi nga am sak nit lu tut tut mu xam bopam xamit fi mu jëm man nak bama ko gisatul ki ma sun borom bolel di serigne si amu serigne salih muy sama serigne nama daan demee ci serigne Saliou laay demee ci mom moy daf may soxla dem ba jaadutul ma dem siyar ji way buma dem ci yar yi la koy fekk te amna rafa ñortu ci ni képp ku koy ngay dom di ku góor ko wala ku jigéen ka mela woowee loo doon ci moom la loo xaasoo ci moom la ba mëni su la tàggaleeg moom ñàkk a gis jëmm ji rek moo ci soppeeku waaye eh, eh, yoon wi mu nit yoon yoon yoon wi mu na tegoon mësuñu ko bàyyi benn yoon ba fii nu toll duñ ko bàyyi ña nga xam ni bi mu fiy jóge ay mag lañu ba beroon na leen kenn ku nekk ba mu la beree da ngaa continuer ci liggéey ba mu doon liggéey do ñi xam ne ñoom la bàyyi woon ci daara yi bi mu fiy jógee daf leen a bàyyi ak njabootam Serigne Cheikh ngi fi daara ya na ko sëriñ bi doon doxale mi ngi ko nii doxale ba da koo yokk waaye dara wàññi ko ci mu gore rek moo fa des ndax nag sëriñ bi mat matale na li war a def ci ñun def na ko pare euh, wuy juna suñu borom waaye mat googu nag dañuy sàmmanteeg moom waxtu wu jot ma daan gis gisatuma ko la ma daan dégg gis déggatuma ko la ma daan yëg ci moom maa ngi ko yëgatuma ko sax laay wax ndax nag wax dëgg yàlla euh, sëriñ bi uuf gi mu uufoon njaboot gi ak nam daan doxe ak ni mu daan safoo ak ni mu ñu daan yërmande ji mu amoon ci jaam ñi wax dëgg yàlla dundatuma ko man man dundatuma ko. baat yi mu mujjee wax nag mooy mbaa seet nga cere ji ma ne ko waaw mu ne ma seet nga kafe gi ma ne ko waaw lan lañ mujjee wax mu ne ma maa ngi lay ñaanal ndimbalal suñu borom baat boobu la ma sañu mujjee wax maanaam mooy mooy mooy li ñu mujjee wax ci ci ci àdduna. al àllarba alxames gi ni ma ko gisee. ni ma ko waxee bi ma gisuma ko tay ba sek ñu xaar ci buntu bi nañu señ bi neena ngeen barkelu ci kafe gi tay yandu ci kër yi ndax tay day noppalu àjjuma ci fajar gi la dem lol dal mom mooy li nga xamanteni ni mom lay dalal sama xel ci aduna mom lay dalal sama xel ci alakhirah ndax ndimbalu suñu borom mom, ci adina la ak alakhirah to baat bobu ma ngi lay ñaanal ndimbalu suñu borom la ma sëñ mu jox neena ma maftaa ma ne ko ni wéetaay yu demet sa lol lool. wi de. ruu gi ko attan yàlla rek yàlla yàlla yàlla rek moo moo moo ko moo moo ko dëgëral ba mu attan ko ci baaxu Sëriñ Tuubaa waaye ak wuru ko attan wuru ko wuru si attan wi wii tay wutul nii kon fa mu tegoon bokkam yooyu kenn tegu leen mos na maa sibbiru sibbiru boo xam ne damaa tëdd ca saal ba ca kër ga ca janatu naan yóbbu leen ma ci sëñ bi yóbbu leen ma ci sëñ bi yóbbu leen ma ci sëñ bi yóbbu ma ci sëñ bi seen saal jaxate yi may wax daal di ñëw daan ñen nañ sëñ nga tax nañ ko yóbbu hôpital gaaw ma leen ma leen dimbali leen ma ngir yàlla yóbbu ma ci sëñ bi moom mi daan ginnaaw boobu ba tey mi ngi yuuxu naan yóbbu leen ma ci sëñ bi nañ ko yóbbu ci sëñ bi rek man daal sëñ bi gis nga keroog bi ma tegee sama tànk ci buntu kër sëñ Saliou daa mel ni dara la jotatuma barki Cheikh Saliou Mbacke bi ma ko jox loxo la ne ma fekk boobu bis boobu bi ma bi ma si buroo damay def saa yu ma naanee ndox rek wàcc ko noonu laa noonu laa noonu da di jaabante naan di wàccu nangumaa lekk dara ko jub rek mu ne ma demal añ ba noppi demal demal ca bool bi demal ca ndab bee ma dem ca ndab la toog añ ba suur daal di ñëw mu jox ma mu jox ma doomu pom ak orange ak banana ni ma tane nga ma ko dara jotutuma jëm yi wéy di wét ci seeni xol waaye di liko mom sëriñ sariwu leeram nga ak kaddom ya xelit di dem ci cheikh beccu cuun mom mi nga xamné mom la seexaloon jamono jim fi nekké wax ci da ami séré té toy xeb nga doxé ni nga nga def ni nga ak mom ngi sant bu baax ni mbolo ay ndaw lañ yoo xam ni ndawi àddina sépp ndaw yépp la bëgg banaatuhoo nañu am ndam mucc ñoomi tamit asbaatuhoo nañu yokkoo yokku am ngërëmit ab naa u seyxi cofeel gaa ngi amul fu mu yam cër baa ngi nii yéena moom seen baay ba mooy sama lem suy dox da daa ndanku daawul dox fi suuf maraxan soy xool da daa xool njëm ab xaaluhu rabihan soy ree da daa muuñ amul woon jot tayit ko Dada khalat luy jariñ alam bi ken sikuko ko soy tok dada ndànku bismillah lay jefando da mas di wet mas la sàkkug mas amul waxando soy wax dada gat dawul wesu luy farata suy jef dada sel daa jub ko ci xam farata da wóolu yalla yalla kenal bamba sax ci jubal batin ba ñoŋ te mat sahir sa musla takal taqal ku ko ay may faw duñ la bugal kon suñu tuddee aw turam ci ko xam ci moom dara boo tàggoowu tax sa sago yàlla la